ndax nee na am na ñenn ñoo ki nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon doyen des te génn àdduna di Samba Sall am na ay kàddu yoo xam ne waxoon na ko ñetti fan ci weeru mars atum 2021 bi nga ci lu jëm ci 94 yi nga tuumaloon Mamour Diallo lu ne daj naa ko Ousmane Sonko ne en tout bi nii nga xam xam ne moom lay doxee rafetul jàdd wala yérekaay gi ñu xëy fekk fa Mamour Diallo mi nga xam ne moom la Ousmane Sonko tuumaloon 94 milliards yi moom nag nee na en tout cas fii ba buftu bi wala amul benn justice boo xamante ni mën naa wane ne man damaa ngembale 94 milliards moom Mamour Diallo nee na nag Ousmane Sonko jamono ji am na lu ko doy sëkk ndax lii nga xam ne moom la ñu ko tuumal jëm ci wàllum siif loolu la Ousmane Sonko war a lijjanti dem wuy jën ak tribunal te bàyyi caaxaan yi nga xam ne moom lay def moom Mamour Diallo nee na Ousmane Sonko jamono ji benn Sénégalais du ko wuy ruus yi te amul benn sénégalais boo xam ne mu ngi koy dégloo léegi kenn déglootul Ousmane Sonko kaddu yu Mamour Diallo la moom Mamour Diallo nee na nag dafa am ñaar yoo xamante ne Ousmane Sonko daf koo bëggul la benn bi xaalis la benn bi jigéen la yéen a kaay gi de la Soleil xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag jël na ay engagement ci li nga xam ne mooy mbay mi ndax nag modernisation agricole loole la njiitu mi di Macky Sall bëgg tax na nag mu jël ay milliards yu bare bare daal di ko ci dugal yéen a kaay nee na lu toll si ñaari téeméer ci ay tracteur tracteur ak ay motoculture yoo xam ne njiitu réew mi di Macky Sall jébbal na ko ñi nga xam ne nag ñooy baykat yi moom Macky daat nay wax ne agro business loole nag mooy solution ngir nag développement daa di am mbay am na solo njiitu réew mi di Macky daat nay jaajëfal félicité bu baax a baax professeur Moussa Baldé mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi ndax ni nga xam ne moom la yore boobu la département kaddu yu Macky Sall ma ngi ci laas yéenekaay yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy ci tabaski gi ak jigéen ñi nga xam ne maanaam ñoo ngi nekk ci seen biir néegu sëy jigéen ñi am na ci ñoo xam ne dañuy sonn loola ndax seeni goro ndax am na ci jigéen ñoo xam ne fu ñu mën a jëlee am xar danañu ko jëli ak i cadeau ngir nag jox ko seeni goro ak dëkk bi lu mu metti metti metti danañu ko lijjante yéene kaay gi nee na am na nag ñoo xamante ni loolee du leen ca fekk yéene kaay gi dala ko di jë xëy dañu xibaar naan ñu coronavirus beek yokk gi nga xam ne moom la yokk ci réew mi jamono ji état bu Sénégal dafa jaaxle ndax amul yenn stratégie de riposte yoo xamante ni teg nañu ko wala nag ñu jël sax ay mesures yoo xamante ni di nga jàpp na nag lii mën naa freiner yokk gi nga xam ne coronavirus ma ngi ko yokk ci réew mi kaay gi de la Tribune nee na en tout cas li am ba bi ni mu yokkee mi kenn ku nekk nag war naa tiit yéen a kaay gi de Les Échos nee na situation Covid 19 bi nii la demee ci ay cas lu toll ci 32 décès ci fukki fan yéen a kaay gi nee na musiba ma bu kumba gu rëy ba muytuwulee nag dana daal Sénégal yéen a kaay gi di réew mi ko di jee nee na démb record la ndax lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak ñetti cas na koy am mesures barrières yi gars yi nañu koy jël yéenekaay gi di Dakar Times wax ci sécurité alimentaire ak xiif bi nga xam ne maanaam mooy yot adduna bi xiif bi mooy yot adduna bi waaye nag rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci déndu Afrique bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñooy waa FAO ak waa FIDA ak waa PAM ak waa UNICEF yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy ci corridor beek pàcc bi nga xam ne moom lañ jagleeloon lu jëm ci wàllum social ren ji nag ñu jagleeloon ko waa LISCA maanaam kuréel gi nga xam ne ñooy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum cancer niki démb Ousmane Faye bu man ko wattu Sénégal génn na lu toll ci un million jox ko Liska ci ki nga xam ne nag moom la ko jox mooy Fatoumata Gënun mi nga xam ne moo jiite Liska ci teewaayu président Mbagnick Diop yéenekaay gi de la Témoin xëy na ci commerçant yi nga xam ne ñooy transporteurs yeeg coono bi nga xam ne moom la ñuy daje ci frontière Sénégal Guinée Conakry yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na nag am na loo xam ne lu am solo la lu président Macky Sall daal di réussir ndax nag juboo gi nga xam ne Sénégal juboo na ko lool ak Mauritanie ba ñu mel ni nag mburoog soow Sénégal